ku bëgg sëriñ saaliwu te fonk loolu Serigne Béthio ma ne ko nag invité naa la ci 17 avril bi te xam naa ne moom it faw mu ñamal ñu waaw waaw bu ñu bu ñu noppee jox Baye Moussa Niang ak sëñ daam Ndiéguène ndax guddi gi kat faw ñu waxtaanee sëriñ saaliwu màggam gi nii mu def sëriñ Béthio kon faw ñu daal di koy baral ndax daanaka bët set na te li ci war bari na bu ñu noppee jox jër universel Boubacar Konaté waaw moom it mu dugg ci waxtaanal ci sëriñ bi bu ñu noppee nag daal di wéyale cant gi ñaanal sëriñ Béthio jaamu sëriñ Saliou mu yàgg fi te te yàgg ñoo jiite ñu yàgg àndak moom cantam gi muy sant Serigne Saliou Mbacké jërë ngeen jëf kon hmm? waaw soxna Kiné Djily jërëjëf Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baab Mouridina jëfati borom Touba Serigne Saliou ñoo ngi siyaare bu baax sunu sang bu tedd bii di soxna ayda maa ngi ko siyaare bu baax ci guddi gii ñuy sant Serigne Saliou Mbacke di siyaare mboolem koo xam ne rek fekk naa la fi ci guddi Serigne Saliou gii waaye gis naa fi sëñ El Hadj Bousso léegi maa koy sant bu baax te di ko siyaaree te xam ko bu baax muy sëñ Malaaka Bousso maa ngi koy siyaare bu wér man nag 17 avril sunu borom dogal na maa ngi ciy soog a ñëw Maroc nag daanaa dem 17 avril ca waa Kër Cheikh Béthio waaye fii ci senegal maa ngi ciy soog a ñëw. te 17 avril yàgg na lool waaye maa ngi ciy soog a ñëw man li ko waral nag Baye Fall bee xewle soxna Aida Baye Fall bi waaw dama bëgg dama bëgg rek wax ji leer ndax man dama dul koo xam ni dama waye di duma ma xooxi waye di man dama gëm Seex Ibra te muy dëkk ci man waaw soxna Aida ñëwuma ci moom ni ngeen ñëwee ci moom déedéet xel comme laa nekkoon di fóotal dongay Serigne Saliou Mbacké man daara yi Serigne Saliou laa nekkoon di fóotal dongo yi lu ma dox ci lu ma xamul man dama ne Baye Fall bi moo xewle Baye Fallu Serigne Saliou moo xewle soxna Aïda loolu laa wax dama laa wax ne na boo xewlee mu ne saadix yépp ngay gis murid saadix yëpp lay gis xam nga lu tax ma waxtaan tuuti ci Serigne Touba soxna Ayda bu xewlee day gis mur xam nga lu tax Serigne Touba nee na inna lisina saarahoo li xidmatihi fa lahumoo diyaaru warsal janna sëñ Bamba nee na ñi may bëgg di ma liggéeyal di gaawantu man sëñ Bamba sama liggéey bi suñ déggee sama tur bi gaawantu fab seeni mbir di ko jëf ci mën sëñ Bamba bu ñu amee or di ko jaay ndax man di ubbi seeni compte banque di ma jox man sëñ bamba ñu dajale di ma jox man sëñ bamba mooy ñi nga xam ni saara xóo ni xidmati si la sëñ tubaa wax sëñ tubaa nee na ñooña fa may boolee seen xol ya fa la humoo ñoom diyaaru war sat na ay dénd laa ni defal man sëñ bamba ay dénd ci biir àjjana dénd yooyu nga xam ni moom la soxna Ayda am ca na dénd ya nga xam ni kër yi soxna Ayda ca àjjana moo dàq kër yi ngeen gis fii ndax fa naxu moo diyaaru war sat janna maa ngi ko njëkk jàppee ci màggalu sëñ Tuubaa gi ma toog dégg ñu naan soxna ay ci màggal gi te màggal gi ku ci raw yaay raw ku raw ci màggal gi yaay raw te gis naa ci Seera Fall ba Mouridina wax naa ko ni ko gis naa la lu mat 10 ans ay ndémbeen suñu borom wan ma la yow soxna Ayda te dajeewu ma ak yow ñu wan ma ne yow mbiri Seex Béthio lu bari suñu borom baras la ko sa jëmb ji da nga koy doxal yow da ngay dem barki Seera Fall da ngay dem te man du ma waxantu damaa bëgg du ma waxoon damaa bëgg YouTube jël ma rajo jël ma télé jël ma ñu ne soxna Kili ji li ma ko wax Baye Fall bi xanaa xamu ne ku Seex Ibra fees ci sa bër koo gisee si day ndaw wuma lii may wax te werante wuma ko Cheikh Fall daa wóolu suñ Modou Mbaye Issa wóolu suñ mbay Mbaye wóolu suñ Massamba wax waqi wóolu suñ Taïba Niang ne ko Taïba mu ne ko Fall Taïba mu ne ko Fall mu ko ndax xam nga soxor lu def ci nit déglu li ma lay wax de Cheikh Ibrahima wax de Taïba mu ne ko Fall mu ne ko ndax xam nga soxor lu muy def ci nit maam Taïba Niang ne ko déedéet Fall Cheikh Ibrahima ne ko Taïba mu ne ko Fall Taïba mu ne ko Fall mu ne ko yàlla bu rëddee nga bañ murideet nga bañ tey ba mu ne ko faal ma ko ñetti biril bi sa bàmmeel la koy def su la dugalee ci bàmmeel rëdd ca kaw ne soxna Ayda soxna Ayda ca kaw ca kaw bind ko ca kaw nga xam ne ba malayka yi ñoo la koy nettali sa biir bàmmeel ne soxna Ayda ngi ci kaw waaw loolu loolu loolu yéen a ngi soo gis yéen a soo gis Baye bi moo xewle Baye Fall yi ñëw Cheikh ma day sot domp sax ci sot la bokk Baye Fall bee xewle may wax na ni dafa am mbir yu xew mbir yoo xam ni dafa mat a xam wax naa ko sànq ni ko fit la ñu war a am war a am ñun murid yi wax yàlla gi Sëñ Tuubaa doon fit fit rekk a des murid bu xuusee am fit xuus ci Sëriñ Tuubaa màggal gi fi ñu ko jëlee daa leer màggal gi du ay làmbatu de ma ne màggal gi du ay làmbatu dafa am mbokkum Serigne Touba moo xam ne mësta nangu gëm sëñ Bamba gëm yombul ma ne gëm yombul nangu yombul dama ne gëm yombul nangu yombuwul dafa am mbokkum Serigne Touba mu mësta gëm sëñ Bamba jàngal nañ ko gëmul Serigne Touba ñu waar ko gëmul Serigne Touba ñu bind ay bind jox ko ko ne ko sëñ Touba ko bind taxul mu xam Serigne Touba keroog ba mu tobbee ci ba mu tabbee ci daa dem bu buntu këram mu toog. bokkum sëñ Tuubaa mi yeewu yem ci Cheikh Ibra daal dina Cheikh Ibra Fall sama bunt loo ciy def maam Cheikh Ibra ne ko ginnaaw waa àdduna ngay wax sëñ Bamba xamoo ko danaa la boo xam ci bar sàq ma la sëñ Bamba boo xam te xammi ko xam xam ak jubam néew boobu laa yee ci bar sàq néew bu wax la kuy sëriñ Tuubaa xanaa bu la néew waxee kuy sëriñ Tuubaa di nga ko xam mu ànd ak Cheikh ci armeel yi njaarim maam Cheikh Ibra yéer ko sëñ Masar Penda Dieng sëñ Masar Penda Dieng mi faatu am bàmmeel fukki at la ko maam Cheikh Rafal yeel Masar Penda néew bi la ko mbàkke mu ne ko wuy sëñ Bamba néew bi dekket loolu du musique du raison amul musique amul raison sëñ Bamba bul tënk musique bul tënk raison amul fa sëriñ bi yee ko Cheikh Ibra yee sëñ Masar Penda sëñ Masar Penda dekki Cheikh Ibra ne ko Matar Penda mu ne ko Mbàkke mu ne ko waxal jëmm ji kuy sëñ Bamba sëñ Matar Penda dekki xool mbokkum sëñ Tuubaa mi ne ko maa ngi nii yeewu ba sàq laa yeewoo waaye ba sàq yi mu ne ko lu mu ne ko ba suba ak ngoon jërëjëf Sëriñ Tuubaa lay dégg jërëjëf Sëriñ Tuubaa lay dégg ba sàq jërëjëf Bamba jërëjëf Sëriñ Bamba rek lay dégg ba sàq waaw jërëjëf Sëriñ Bamba moom la sëñ Matar Penda ay dégg de néew bi maam Seera Faal banque ay baaraamam ni ko matal pen la mu ne ko mbàkki mu ne ko wax ma wax ma jumaa yi sëñ Bamba ji nu mu di jumaa yi ki des mu ne ko jumaa yëpp dañuy ëf bofti bu seey yii jumaa xar yii jumaa bënni yii jumaa weer waaye jumaa yi sëñ Bamba ji du xas du bënn du fet du max baneen yel baax yi binaa an baax yaa bi xayraa dilil lii dinaa ne raax yaa tabax bu dul fet du tabax la bu dul xar du fett du max li dinañ rax ya tabax sëñ bamba bi waaw léegi foofu laay taxaw uyu ma Cheikh Ibra Fall boot ko néew bi Cheikh Ibra boot ko lu ko def boot ko yóbbul ko sëñ bamba néew bi miir mu jox ko sëñ bamba néew bi jébbal boppam sëñ bamba di jooy Cheikh Ibra Fall ko àddoom ah, mooyul jooy yi góor bu rusee daw rusee yuuxu day gàllaaj ci day ngan lay gëm sëñ bamba rek ay gàllaaj yow boo bëggee am jàmb bëggal sëñ soo bëggee mucc bëgg Serigne Touba soo di liggéey Serigne Touba boo bëggee pànk ba pangalang kenn du la mën di liggéey Serigne Touba li la lu la waay rawee lu la waay rawee dañ koy jëf yaa ngi xool barki Serigne Saliou Mbacké la waay rawee liñ lay rawee biñ lay jëf yaa ngi xool sa morom lim lay rawee biñ lay jëf yaa ngi xool. fay Mbàkke yaayoo jaajëf yaa fi def lu jar jaa waaye moo waral noonu jaajëf. Serigne Saliou njëkk a bay boo déggee àjjuma Seydi Ayam soxna Ayda xam nga Seydi Ayam Seydi Ayam mooy Serigne Saliou Serigne Saliou mooy Seydi Ayam sangu bisi juróom ñaar fukki àjjuma bay na ko jébal ko Cheikh Mourou Moustapha. noonu la ko defee Serigne Fallou noonu la ko defee seriñ Baara noonu la ko defee Cheikh Abdou Lahad ajjuma la gën a àdduna ajjuma la ñibbi àjjana muy Ayaam sangu bisi Serigne Saliou wax nga ko sànq wax nga ne saalihiina si yu kamilu amal waaye saalihiina si yu kamilu amal Serigne Saliou saalihiina si yu kamilu daa gàtt damay dil yàlla yàlla nag ma may Saliou waaw tubaab fu mu ko waxee bi tubaab bi yóbbu na ko fu ne waaye bi mu ko dee yóbbu njaaram daa ree ba dëgg jëm dund Seydina Jibril laaj ko looy ree yow njaaram rek ngay ree njaaram rek nga ree ba sa dëgg ji génn Serigne Touba ni li ma yàlla dig saa li ma yàlla dig saaliw ca njaaram a tax may man sëñ Bamba raamu masiiri ilaa la daala tasil lam ayalu wa ma fi siri wa raamu li ko yàlla dig saaliw bi ko yàlla digee Serigne Saliou Mbacke la Serigne Touba tàmbalee ree kan mooy Saliou kan mooy Saliou koo xam ne loo ñeme ñeme yàlla boo ko gisee tiit loo ragal ragal yàlla boo ko gisee tiit lu tax melokaanu suñu borom yi mu yor ñaari ndaajoor la yor allahu lañ bind kalam gi allahu lañ bind jàmm ji sëriñ Saliou boo ko xoolee yaral xafaaya bi ay ni xëyri sakajël kamaayu saa idu mooy taxal ak i naati waxtu wala jàkk sëriñ Saliou mu xam ndax da faatu am da ngay sawara am da ngay am fu mu lay yéegi ci yàlla tàggale ci suñu borom yóbbu suñu ku dul sëriñ Saliou Mbàkke mënoo ko loolu ku dul sëriñ Saliou ku dul sëriñ Saliou mënoo ko moo tax moo tax ñi nit ñi nañ nit ñi nañ bay soxor ma ne ne ma nit ñi nañ bàyyi soxor kenn du Serigne Saliou Mbacké kenn du Serigne Saliou Serigne Saliou du moroomu ku yàlla bind Serigne Saliou du moroomu ku yàlla bind loolu laa wax de dama ne Serigne Saliou du moroomu ko yàlla bind waaw dama ne dama ne dama ne Serigne Saliou Mbacke du moroomu ko yàlla bind dama ne Serigne Saliou du moroomu ko yàlla bind foofu laay wax moom du moroomu ku yàlla bind waaye nisaaku mu sakkara jigéen lay doon waaye jëfi góor rek lay jëf mooy soxna ay di muy toog waaw waaw góor nga de yàlla na la nga yàgg fi barkib Sëriñ Tuubaa Mbàkke boo fi yàggee day gën a dox day gën a dox gën a neex gën a kawe te ku la xaar xaddi barki Seer Faal Baay Faal yi ànd nañu ak yow de mur yi ànd nañu ak de mur yi bëgg nañ la saadix yi bëgg nañ la yaa gëm Sëriñ Tuubaa da am ndam ba faw dafay am ndaw ba fomb saraxole leen lu ma déggee soxla yi saraxole leen waaw jaa ngeen jëf jërëjëfati Serigne Saliou Mbacke jërëjëfati Serigne Saliou. alma alma alma alma alma rajo bi. li mu la wax a nekk ñun ñi ñëpp kenn ku ne yaa ko tax te ñii toog nga bokk ñoom cheikh bi kenn ku ci nekk li cheikh bi def ci yow xam na ko. ah